leen tàggatal di jiital si nuyoo bi nag suñu jàmbaar yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii di gérer suñu école muy monsieur le directeur Mame Aliou Dione et son adjoint monsieur Ibrahima Sène ay jàmbaar lañu fakk tëdd yoo xamante ne ménagé wuñu aucun effort pour école bi jëm ci kanam ak ndaw ñu fi jànge ñu gën a am xam-xam ay vrai jàmbaar lañu tàccu leen santaat di gërëm jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo waral lii yëpp muy jeunesse waa kuréel bi ñuy wax Ngoné ca kanam ci turu Abdou Karim Ba mi ko jiite ak délégation bi ñu ko seqal yëpp ak ñi ci yëngu yëpp lu ñu yëg ak lu ñu yëgul maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax franchement li ko ni ko suudu jaan doon waxee rek euh, bàyyiwuñ leen relève bi rek mu échec wala ñu bàyyee leen ko muy euh, ñoom Marème ak euh, ummi ak euh, soxna Ndiaye ñoo leen di nuyu bu baax a baax di nuyu askanu Ngooga rawatina ndaw yi leen sant bu baax a baax ndax man maa ci gën a nekk ndaw ngeen jiital ma te lu ma yëkkati ngeen ànd ci ak man maa ngi leen ciy gërëm bu baax a baax ak jigéenu Ngooga ñëpp muy pël ak séeréer ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax ndax bi ñu jàppee bés ba léegi ñee ngi seen dugal seen loxo di woote di laajte di joxe seen xalaat maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax ak suñu grand Issa ndax boobu ba léegi moom moo ngi ñuy gunge ci programme bi. ndax programme bi waroon nañ koo def ci mois de juillet bi ñu xoolee mu xat trop ñu puus ko ba ci mois de décembre mu tombé ñeenteelu at bi muy suñu troisième édition ci ren ñu koy def te ñu siy gis avancement bu baax a baax ndax ñaari édition yi ñu commencé. trois meilleurs élèves lañ doon jël sa classe bu ne te ñu yéeg ba ci quatre premières yi quatre premiers meilleurs élèves ñu koy jël te ñoo ngi ñaan aussi mu gën a avancé leen sant bu baax a baax ndax njàng mi di ko gàttal rek comme que moo ngi guddi di jaajëfal délégation yi fi teew comme sama mag yu baax yi di grand Aliou Ba teewal fi benn association comme ni ko Aliou waxee léegi ci kàddoom ñoom it ñuy yëngatu si loo xamante ne développement la cardiologie ci la Matlaboul Fawzeyni bu Touba. en même temps nekk président association pour le développement du Baol ñu koy wax fête finale Bantare di am mbégte bu baax a baax ñëw fii ci Ngonga ci li nga xamante ni lu am solo la. ndax buñ ne ay meilleurs élèves lañuy dañ ko loolu am am solo la ndax àddina lépp éducation moom moo koy jàllal. ndax tey ji boo nekkee médecin dangaa jaar ci PAN boo nekkee président dangaa jaar ci PAN kon lépp loo gis rek. li moom moy njëkk moom moy daje kon di ngeen initiative bi nga def ni initiative bu am fulla la bu am solo la ñu ngi leen ci sant bu baax yeen yi nga xam ne di la nuyu di nuyu delegation bi nga andal yëpp di nuyu ngo ko ñëpp di nuyu delegation bi ma andal Mama musa Adama Ka euh, Abdou Karim ya ngi nga andal fii yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal bu baaxa baax bis bi daal bis bu exceptionnel la bis bu rafet la li mo vraiment kenn ku ne war nga ko roy ndax nit ki bu fekkente ne day liggéey benn affaire nga ne ko jaajëf day tax ñi teg ci ginnaawam ñoom itamit bu ëllëgee ñu mën a ñoom itamit am cawarte jéem a topp ci tànk yooyu nga xam ne ñi ñuy jaajëfal def nañ ko ndax loolu encouragement la ci jeunesse bi yëpp. parce que damaa mënewul wax lu bëri maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu initiative bi lii moom lu rafet la ñëpp ñoo ko war a def. muy muy waa Ngongo muy école yëpp ñoo war a def leen wax ne damaa mënul wax nag ñu leen di sant. ñëw nga gépp ñu ngi nii képp ku ñëw ak ku ñëw sant nañ la gërëm nañ la itam loo nga si ñu ngi ci sa gannaaw loo wax ne loolu la ñu ne loolu la boo waxee du foofu ngoo nga xam ne du foofu yow la ñuy déglu yow la ñuy noyee yow la ñuy yaakaar nii mu mel tey ku ne xam ne ngoo nga mos a mel nii pot làmp ñu def nii. fël salaire def nii ndox na ci biir wano bi loolu si kenn mosu ko gis ci moom mosu am yaa ko bu nag nit nag bu defee lu baax boo goree nga gërëm ko Cheikh waa Ngow nga gërëm góor mag jigéen ndaw ñëpp a ngi lay gërëm ak sa àndandoo ñu ñooy àndal nii Baye Sall nii nga xam ne moo des ci poste bi yaa ngi fale bu goree ko lu métti métti métti mosuñoo wax dara lu dul doog rek ba lii lépp fekk leen fi daal bon sant rek lañ la kon euh, ñoo ngi lay sant si bu baax a baax a baax. dama koy wax rek monsieur le directeur John ak sa collègue li nga fi nekkal vous avez relevé un grand défi ndax dama koy wax fu mu ne école Ngooga demoon na ko tas mais tey. bu fekkee place bi mu yor tey monsieur Dione yaa ko jox kon ñoo ngi lay nuyu bu baax di lay encouragé jaruma ko dal nag kon maa ngi nuyu population bépp di leen di sant di leen di remercier. on avait constaté que école bi à mon arrivée en tout cas euh, j'avais trouvé ici benn effectif boo xam ne vraiment duma leen gën a mais.

daanaka mën nañoo wax lu bëri day nañ fi ne ndox maa ngi tuuru te dañ doon takk sareet du rooti fi mu ne benn jéeg takkatu sareet rooti ba dangaa dem ba defal ñii ñuy de nga ne képp ku ngeen gis kuy takk sareet du rooti rek wax leen ko ba loolu yëpp yàlla dindi na ko mo ay la tontu lañ doon niite fi mu ne lampadaar yaa ngi ci buntu kër gi fu la neex jaar te doo yor tontu ndax ci dolli ngay indiwaat courant mosuñoo foog na mboq nga dina dem gox bi fir ne poto yaa ngi yëpp sànq ci kër gu ne bu doon bote moo tax ngay samp poto yi kon doon am na kër yoo xamante doo fi samp poto ndax bi ñuy def campagne am na ñu lankoon ne duñu voté Cheikh waaye Cheikh daa ñëw yëmale yëpp wuutul xaj ak seet wuutul ñii moo ma voté wuutul ñee ñoo ma voté ñëpp la yemale mu ne fépp fu bokk ci Mboga rek sampal ko poto mbaa ngeen defal ko ku wax kon Cheikh jërëjëf ñu ne suñu projet saabu yi tax na ñun ñu liggéey nañu dootuñu jëlee ndeg gisee dootuñu kumpalo lu xew rek ñaa ngi koy jëga teg sa borom kon Cheikh yaa ko waral ñu ngi la ci sant la gërëm fi ne li ñu liggéey ci suñu doole nga xamante ne moo suñoo boole fukki junne yu mot fi mu ne suñu saabu yi am nañ ci téeméeri junne ak juróom-ñaar ak yu teg te bokkul ak lu ñuy liggéey te lépp Cheikh yaa ko waral ñu ngi la ci sant di la gërëm yal na yàlla doole sa taxawaay rek ci doole bu leen jënd ko da ngeen toog da ngeen di def nag loo xamante da ngeen koy def kees. tamit yàlla ak yonent yàlla moo am waaye yéen waa Ngonga dégg naa li ngeen wax ñu sawar a ndax safeer dof rek la ñun si borom dof rek la ndax boo yoree boo nee damaa bëgg ngeen jiital ma ma jiite leen bu ñu la jiitalee la def kooku waru gar boo war a def du sa ndam du sa njàmbaar kon lii ñu la boo xam ne ko war a fii yettale si ñun dëgg yàlla bu ma gis yi euh, maanaam euh, lampadeer yi wax dëgg yàlla am naa fierté ci loolu li tax ma am fierté mooy am na ci si jiitu woon te def na kon li ñu ko defee wax dëgg yàlla fierté la yéeneen ci gis seen bopp loolu mbégte mooy def ñu ndax bu naax saayoo ngeen dem lépp réer xaalis bi naax saay kenn loolu daf ñu métti waaye comme yéen organisé wu ngeen lu ci am lu ngeen dajale lu néew néew loolu daf ñuy encouragé ba ëllëg ñu defal leen yeneen formation yoo xam da leen ko ciy ndax jeunesse mooy yaakaar yi ëllëg incha allah duñ leen fàtte duñ leen fàtte ndax yéen yéen yéen suñu raison d'être fi ñu nekk buñ fi nekk yéen tax. Euh, xëy na nag mooy yi am na foo xam ne eggu fa waaye lépp luñ mën si jàppale leen wax naa ko ren ci commune bi pour ñu